réew mi quotidien nee na autopsie bi ni mu demee dalul xel ba léegi ni li nga xam ne moo jëm ci wàllum enquête bi nee na ni muy doxee dalutam xelam neexu ko benn yoon ba tey ci biir journal bi moom waajuru parental bi daat nay wax ni ñi nga xam ne ñooy waa crèche giñol bëla ñoom amul lenn loo xam ne ñoo ngi koy tiita jamono ji ñoo ngay continuer seenu liggéey good fine yéen a kaay gi de la turbine nee na woppi coronavirus ji tax na ministre bi ñu dénk kaaraange réew mi tere lépp loo xamante ne jëm na ci wàllum rassemblement waaye nag ñi nga xam ne ñooy waa lew na ñoom nee nañu nañu leen génne ci lu jëm ci wàllum tere gi ndax bu ñu waree rassemblé wu danañu rassemblé wu yéen a kaay gii di Les Échos nee na ñi nga xam ne nag ñoo mer ba maara day tali ci tere bi nga xam ne tere nañ ko mbirum rassemblement mooy artistes yi artistes yi seenug mer fu ko waay nat daan na koy passé ndax lu toll ci fukk ak ñeent ci ay kuréel nee nañu danañu amal toogaanu ñaxtu alxamis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal yéen a kaay gii de las nee na lu jëm ci woppi coronavirus ji ak yaafus ak yaacaaral gi nga xam ne ñi yëngatu ci wàllu wér gi yaram gi amee nañ ko tax am na ñaari nit ñoo xam virus rey na leen ca diwaanu Matam te la ko waral mooy dañoo amul ay respirateur artificiel yéen a kaay gii di Dakar Times nee na gouvernement bu Sénégal bu ñu waxantee dëgg laj gi dëgg la def ndax ay at a ngi nii bëri na ay chantier yoo xam ne état bu Sénégal moo ko sumboon lépp taxaw na demul ceng dikkul mbay laara lu toll ci ñeen fukk ci ay chantier jamono ji kenn waxutul seeni wax am na lu toll ci fukk ci ay société nationale yoo xam ne fayit la ñu def nërmeelu nañ yéen a kaay gii A nee na budget 2021 bi dina tax Sénégal dem lebiwaat xaalis Abdoulaye Daouda jallo bor bi nga xam ne réewum Sénégal amee na ko ba ñëpp di ko ŋawta ŋawte Abdoulaye Daouda Diallo dina yokk bor boobee ndax dina wuti lu toll ci mille trois cent soixante trois milliards yéen kaay gi di réew mi ak critique ñoom nag li ñu gis ci lu jëm ci wàllum supprimer ville bu Ndakaaru mooy xoqatal gi nga xam ne moom la ñu xoqatal Khalifa Sall toppee ko mbooro loolee ba léegi nii moom la état senegal Sénégal di wëyal Assane Samb ci biir yéen kaay gi nee na kàddu yi nga xam ne kilifa yi ñoo ko yëkkate ci lu jëm ci wàllum supprimer ville bu Ndakaaru loolee waxi wayaa la waxi kasaw-kasaw la wax ju amul bopp amul genn li nga xam ne mooy dëgg mooy pression bi nga xam ne état bu Sénégal ma ngi koy teg ci kaw Khalifa Sall ba léegi nii moom la wàccegul te mbir mi yëpp mbirum politique la ndax gis nañu Khalifa Sall ànd ak Ousmane Sonko yéen ay gi de Les Échos ak Source A ñoom li ñu gis nee nañu Omar Gueye démb moo fi waxoon ne ci code général collectivité territoriale yi ville nekku ca waaye nag kàddu yooyu nga xamante ni Omar Gueye wax na ko ay paccal forox la journal na code collectivité territoriale yi wedd na Omar Gueye wax maanaam du dëgg ay kàcc la yéen a kaay gii di la témoigné xëy di ñu xamalaan ñu lu soxal wàllum supprimer ville bu Ndakaaru Amadou Sène ña ab expert la xelam màcc jëm ci wàllum décentralisation moom ak Thierno Bocoum jubbanti nañu Omar Gueye yéen a kaay gi ba tey Birahim Seck moom li muy laaj mooy état bu Sénégal wax askanu Sénégal élection locale yi kañ la loole la Birahim Seck di laaj yéen a kaay gii di Vox Populi ak réew mi quotidien ñu xëy fekk fa waa FRAPP France dégage ak waa Yaana Mar ñoom nag ñoo ngi wàllu Assane Diouf mi nga xam ne ma ngi ci kaso rek la ñu sàkk mooy ñu libéré Assane Diouf wala ñu àtte ko caat bu yaanaa maar ci yéen a kaay gi nee na réewum mu am nday ak kumba mu amul nday moo fi am ndax dafa am ñoo xamante ni maanaam ay saagakat lañu nekk ci Macky Sall Macky Sall nangul leen ñu dagg ay saaga di dox seen yitte am ñu ko Macky Sall nangulul ndax kii nga xam ne mooy Cissolo ku ko ko dàq saaga ci réew mi yaa xam mbay ku ko dàq saaga ci réew mi Souleymane Jules Diop kan moo ko dàq saaga ci réew mi te moo ne di ñëpp ñoo ngi leen di bàyyi ñuy lambar lambari kon lan moo tax ñu nangul ay saaga ñii bañal ko ñii yéen a kaay gii at bu yaanaa mara nee na Mansour Faye gorom njiitu réew mi moo gën a yées Karim Wade yéen a kaay gi délibération ñu jànge fa ne Babacar Dia mi nga xam ne mooy contrôleur des impôts et domaines ma ngi ci biir ak banditisme foncier goo xam ne fu ko waaye natt daan na koy passé Babacar Dia mii nga xam ne mooy contrôle des impôts et domaines li ñu koy tuumaale ci ay scandale ci ay njuuj njaaj ci lu jëm ci wàllum suufa bëri na loola ñett yoon yoo xamante ne interpellé nañ ko si mbir mi yéen a kaay gi de ak les ñu jànge fa ne dafa am benn maçon boo xam ne dafa rey patron te bi li tax mu rey patron ma dafa bett patron ma ci rakkam bu jigéen ñuy siim seen mari ŋàññe yéen a gi de la témoin nee na jotu ñoo siim seen mari ŋàññe waaye rek dañu doon fóonante maçon bi ci boppam moom moo téeyul waaye nag soo muy tuulee li des ci ak dundam yépp dañu ko koy tëcca ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre la koy létt wala ñu firi ko yéen a kaay gi nee na ca diwaanu Tamba am na fa benn imam boo xam ne dañu koo jàpp ak yàmba yéen a kaay gi de estat huitième de finale Ligue des champions yi ñaari choc am na ci diggante Atlético Madrid ak Chelsea Barça ak Paris Saint-Germain